daal euh, bëgg réewam euh, faral équipe nationale moo tax mu joxe drapeau yi amaana mën naa bañ a nekk loolu comme mën naa la gars na càngat yu ñuy boole drapeau bi. waaw sama micro moom mën nga naa jëmee amul problème. waaw onze mille mille seydaan rajim ginnaaw bañ sant yàlla jël si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama papa bu na ko sama yaay yàlla na ko suñu mu gën a sama njëriñ. di sant yàlla bu baax a baax damaa dëgg woon di jaalee sama papa Double Less du ko ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di ñaanal Père Mbaye Gueye yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di ñaanal kenn koo xam ne Pikine la nekkoon muy monument Pikine Samba Sarr maa koy ñaanal yàlla na ko suñu borom xaare àjjana di nuyu waa Pikine yëpp di sant sëñ di sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu baax moom may sant sëñ Abdou Karim Mbacke di ko santaat bu baax a baax di sant jawaru sëñ Fall yëpp di sant sëñ Ater sëñ Tako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 di ko ñaanal jàmm di ñaanal kenn koo xam ne kenn la si man muy maanaam séeréer maa ngi ko ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm lu bëgg yàlla na ko suñu defal lii la bëggoon si yàlla na ko suñu borom defal jàmm. waaw moom la sama premier combat moom bëri sama premier combat laa waa parcelle la ma tax a jug man maa ko waxoon te dama séntu ma ne moom lu mu yàgg-yàgg li mu bëri assumé loolu yëpp ne pare naa wax dëgg yàlla lépp lu mu laaj rek maa ngi si pour affronter moom la bu soobee yàlla. lépp pare naa bu ndaw laa tamit <laughs> pare naa. mais mais Ama question boobu laajoon naa ko Modou Lo keroog bi mu fi ñëwee ne ko. Mhm. boo yaakaaree ni combat bi dana yomb da ngay nax sa bopp. waaye Ama boo yaakaaree ni combat bi day yomb di nga nax sa bopp ndax Modou ku ne gis na ni mu génnee Pikine fa la jëlee roi des arènes bi di Eumeu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 jël bu gaaw xam naa bu baax a baax. Hmm. maanaam mos nañoo laale. xam naa Modou Lo bu baax a baax wax dëgg yàlla musuma tëdd ne maa mun Modou Lo waaye am na rafet naa si jot bu baax baax dinaa doon waa RSA incha allah. incha allah. wala nga xamante ni dañ daan gis Ama u Sénégal ñu koy gis ci internet beeg fépp Ama Europe la ko defee. bëgg bi moo ko jar wala da nga demoon pour lan lan moo la yóbboon Europe et puis bu dee fa nekkoon pour entraîner Modou Lo lan moo koy daan Modou Lo doole la moo koy wala yàgg Europe moo koy daan lan la. waaw su ko pour noos wala. waaw su question boobu a tontu bu baax a baax xam nga tey combat yi répété woon nañ ko répété waat ko dama dem trois mois la defoon pour ñëw xam nga ma toogaat gisuma lu ma xam.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 yàlla na ko yàlla kàttanal lu lépp lu mu bëgg si làmb muy doole muy kàttan wér gi yaram xam na waa parcelle ñëpp en tout cas dama bëgg buy ñëw mu doon ni koo xam ni ni koo xam ne xam ni kii champion ñëw na borom kàttan ñëw na borom doole ñëw na xam nga isa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 di gërëm bab si ñaar ñooñu laa nekkoon seen loxo xam na ku si mel ni muppool xam na maa ngi gërëm ñooñu ñëpp wax dëgg yàlla taxawu nañ ma lu ma war a taxawoo xam na dooleel nañ ma xam na tax xalaatuma dara ndax ñoom wax dëgg yàlla franchement lu si war yëpp def nañ ko di ñaan yàlla yàlla na leen yàlla di ñaan yaasin mbay yàlla ko suñu borom defal jàmm mais mais mais tamit fi jàppoon nañ ko 2STV euh, Sen TV mujjul am ñu jàppaat ko arène nationale mujjul am te lu ci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 barki Arouba ñoo ma gën a bëgg bis bi bu ñu soñoon dara dara boo leen communiqué woon nañu jëli ji Modou ngay dem jëli ji si jàmm indi si jàmm barki soñu Fall la waaw ak nigu làmb yëpp xam na ñu suñu route lañ ñu jox dañu jaarleen leen EDK de Pikine ñun ñu jaar EDK Pikine Modou Lo ñu ne ko jaaral tribunal ba mais ñun defuñu dara ñu tribunal fu ñu jaaroo jaar nañu fël de route bi xamal kuy jug bis ñu naan bis boo xam ne sécurité wóoru wala wóoru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 man daal maa ngi woo maa caam ñu ma war a woo maa a woo waa sufa ñu xam na ku su mel ni Fall maa koy sant bu baax wax di ko gërëm moom taxawu na ma biir taxawu ma su mel ni sëñ Mor Thiam yàlla maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax naa ni muur bu baax a baax du ñeeku ñeeku sa comprendre combat bu diisee si man bu diisee si man yëpp yàlla xam ne man xam naa treize mars xam naa bu baax a baax nu may fekk ak lu may xaar xam naa bu baax a baax te maa ngi si xam na Jules ku ko gis mu nekk sa ginnaaw sax ñun duñu gaako quoi Jules Baldé xam ne lépp maa ngi koy ñaanal yàlla ko suñu borom defal jàmm. amiin. am waaw boo bëree mbapat ne xam na ko bu baax baax Modou Lo xam na ma bu baax a baax man moom mbapat nañ xam na xam na ma bu baax a baax moo may jàngat lu nekk si man yëpp xam na ko wax dëgg yàlla kon na ma ko xam dañuy ñaan yàlla léegi yàgg na ama mbapat boobu ak léegi sël sël nga woon sël bi màgg na Modou jël na fi roi des arènes ba doon xarit loolu xam nga ba ma daan sama papa la te boobu simple la woon dóor ngeen di daje waaw xam nga Modou ba ma daan sama papa lan la ma wax an ko bu ndaw la xale bu ndaw nga. mooy daan an ko ci koy yàq. waaw xale bu ndaw nga di nga màggi. waaw dama noppi demal entraînement ji. man ba may bëree muuloo xaw ma entraînement de. ba ma daane ba suba si laa xam entraînement. man muuloo moo ma def champion wax dëgg yàlla billahi dama koy sant bu baax a baax jiw bi. bu ma defee sama kër papa yàlla ak muuloo la. Mm-hmm. man jour laa woon fubar rek laa mënoon. waaye muuloo ba ma daane. laa takk sama tànk takk sama daal takk sama lépp. wax dëgg yàlla dama koy sant bu baax a baax di ko gërëm lépp lu ma am si làmb yàlla ak moom la su ma déggee roi des arènes tamit yàlla moom la. jërëjëf. du Modou Lo nga. mais mais mais grand grand loo gëm la loo gëmul gëmul la. yàlla loo gëmul gëmul la. gëm damay doon roi des ah? loo gëmul gëm la. nit fekk si yoon yoon dañ fekk si yoon rek yóbbaale la. loo gëmul gëm roi des dama ko gëmul gëmul. ma doog ko ñooñu si bu baax a baax képp kuy sama famille rek képp koo bëgg na am bal nekk sama famille a yaa ngi si bis bi. si waa bi ñoo war a bëgg sax wax dëgg yàlla barke sëñ Fall. Mhm. jërëjëf. est ce que bisimilah. waaw dégg nga maanaam moom bilaay ñëwuma ko ñëwuma ko <laughs> loolu mooy bàyyi question Sénégal ah, ñëwuma ko. Ah, ah, <laughs> ah man moo ko wax mu wax ko. Eh. ne ñëwuma ko ñëwuma bàyyi man xale bi rek ma nangu enculé ñëwuma ko. waaw bis ba la treize. waaw yàlla bëri na Modou Lo dugg Pikine am fa ñetti combat yaakaar naa am seen daan ñaari yoon ak laaj bi yow ba dugg parcelle am fa ñett ndam yooyu daan fa ba daan fa Baykol daan fa Zos daan fa Papa mu nekk 3-3 chaque fois dañuy dégg ci discours Ama Baldé mu ne mu daan wax ku mën ku ëpp ku dàq bëre yaa ngi ko yàlla bii yoon nga indi ku mën rek. da parce que bu gis ngay a kuy gis Modou Lo ñu duggoon ko jël deux rois waaw sa question bi na question sawar a tontu bu baax a baax bisa comprendre na xam nga boo gisee maanaam ku dàq bëri ku dàq xeex yaa na yàlla may ndam parce que mu jeex a jeexal jëli bi xam nga parce que ay wérante beeg yooyu xam nga maa la xataraay beeg yooyu yëpp xam nga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 xam nga man ku ma taxaw ne la bëriwuma ak moom àdduna du neex naqari ba ma moom wax dëgg yàlla xëy na yàlla sax dafa ma jagleel lu bëree dafa ma jagleel lu bëri am na booy yu ndaw ndaw yoo xam ñooy ñëw si làmb samay morom ñooy ñëw si làmb ñooñu mun naa toog xaar leen comprendre loolu rek di ñaanal yàlla pikir yàlla fi jàmm sax xam na di ñaanal AS Pikine di ko ñaanal yàlla ko suñu defal defal leen xam na di ñaanal moo taala suñu gaag xam na moom mi doon président AS Pikine maa ngi ko ñaanal yàlla na ko yen bi du ko ñaanal lu mu bëgg moo xam si Pikine yàlla na ko suñu borom defar di ñaan sama mag Thierno Ba Thierno Ndom Ba maa ngi koy a baax baax a baax kooku mun naa wax sama lépp la maa ngi koy ñaanal yàlla na ko suñu borom defal jàmm maire yu nekk Pikine yëpp maa ngi ñaanal yàlla na suñu borom defal jàmm lu tax ah, nekk arrière xam nga man kër xam nga man kër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 ñooñu lekk ñooñu naan ñooñu préparé suñu roi des arènes. non non man kii laa économie laa xaalis bi mm. est-ce que yëg nga ko daal maanaam est-ce que frappé na la côté xaalis bi ñu ngi dugg wala génn ak ni nga demee Europe préparé sa combat di kat yooyu que corona bi laajal sama nijaay ak ndimbal li gars yi joxe est-ce sama nijaay chaque jour moo <laughs> <laughs> ko xuloo moom. jox ma radical bu mujj bi après. bu mujj bi bu mujj bi <laughs> la jënd a waaw. làmb ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu nekk si lu ñu war a nekk comprendre na di si liggéey képp ku ñu si waa Pikine li si war a liggéey yëpp ñooñu si liggéey wax dëgg yàlla xëy na tamit ànd na munoo def lépp xam na tey boo defee fees ñu ne warul boo defee ñu war a def képp koo xam ne mooy mooy muy mbëru Pikine dëgg Pikine wax dëgg yàlla nekkul Ama Baldé de Fallaye Baldé moo tax na yéene ma parce que sama def na lu nekk Pikine wax dëgg yàlla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 te jàkkaaroo Modou Lo rek lañ bëgg na Serigne Touba dama nëbb Modou Lo <laughs> Boubacar Pende